Chers frères, chers sœurs la l'association en la nous sommes euh, à la région de Thiès, au village de Nyama procéder au lancement de ce puits-là, donc euh, dont les travaux sont avancés depuis longtemps. Euh, bon tenbi nga xam dañ ko fi defal wa dëkk bi pour mu teggil leen njaaxare manam pour mu teggil leen ay jafé jafé uti ndox mu nekk lo xam da fay dugg ci cadre jaamu yalla ndax ñi leen ko fi defal ñom dañ ko def te yàlla tax association la bu nekk France bo xam ñun ak ñun dañuy collaborer di liggéey ñom ñoo ñu confier seen xaalis pour ñu xolal leen benn dëkk bo xam dañu soxla ndox ñu defal leen ko fa mu tombé nak mu ñëw seen dëkk Euh, kon mu nekk teen boo xam ne alhamdulilah am na ndox parce que fekk nañ ne nit ñi mi ngi ciy root li ñuy ñaan mooy liggéey bi egg ndax ay xëy na des na ay travaux yu ndaw. teen bi de fi mu toll moom wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax ndax xam naa ne am na ndox mais nag li nga wax moom day yokk rek waaye wàññiwul dañ koy eh, gasaat ba mu gën a am ndox loolu moom taamu nañ ko ci lool jërë ngeen jëf fi ne moom jigen yi mom noppal nañ ci euh, rotum ndox mu mu neex fële lañ ko doon roote projet way fi lañu ñuy yem ñoom ñëpp léegi waaye nag day jeex mom parce que dekk bi yëpp xey ci benn teen li nak mom neex nañu yalla nañ kiko def mom yalla may ko tuyaab bu ëpp ci ci a tuyaab aduna yara ngeen jox jëf eh, teen bi nga xam am ngeen ñu dox ni ah ñong ci sant yalla di leen ci sant bu baaxa baax parce que mom jigen ñi moom sonoon nañu lool mais seen ciono mom wàññi wàññi ngeen ko a ah, na may la baal teen bi am na ndox nee na ah nee na day jeex mais am na ndox bu baax a baax a baax def di li mu yónnee nag dafa dafa bëri eh, di waa dëkk bi yëpp fii la ñuy roote sareet ak bopp ak lépp la di dem a ah, li nga xam ne nag moom laa ci mën a teg ah xanaa gën gërëmaat leen sant baat leen. di leen di leen ñaanal gërëmuñu sax leen di ñaanal ndax teen bi ngeen ñu defal wa dëgg yàlla am na ndox te sonnoon nañu ndax ci àll ba fële lañ doon ute ndox. yeen saa sax guddi dañ daan jog di rot way wax deug yalla teen bi bu ñewé ñëwee ba tey noppal nañu teen bi mom amna ndox xeyna limu yanu la tanul way amna ndox ñun nak ñong leen di ñaanal fiñu tollu di leen sant di leen gërëm di leen bal di leen balu parce que bi metti na li ngeen ci seenu nak borom lim ci seenu ba diko def yalla na ko borom fay li ngeen def nak yalla rek mo am seen pay ki leen awloo yoon wi ak yéen mi aw yoon wi yal na leen yàlla jàppale te teen wi tamit borom doole la déedéet rek ndeysaan nit yee bari ci kawam lu mu bot moom antalu ko waaw ñu ngi leen digg itam di leen sant yéen a xam ni ngeen bok yal na leen ci yàlla jàppale ci ñu bokk ko ñun ñëpp suñu coono ndox kay wàññeeku na bu baax ndax fee lañ daan roote ginnaaw kër ge bu ko weesee fee caxur wa amuñu fu ñu jubal jërëjëf gërëm nañu leen sant nañu leen yal na yàlla gën a jàppale. ah déedéet amuñu robinet kay ay teen kese teen kese moo fi am. alhamdulillah aujourd'hui on est venu pour voir l'état d'avancement des travaux donc le, but, le puits a bien avancé et euh, l'eau on a touché l'eau alhamdulillah les villageois ont même commencé à utiliser cette eau malgré qu'on n'a pas encore fait l'inauguration parce que c'est un besoin tout, autour, il n'y a pas de puits. Donc, alhamdulillah, les villageois ont commencé déjà à utiliser l'eau. Donc là, on va finir, continuer à, finir les travaux, donc pour faire les finitions, le carrelage, etc. Nous prenons une date, Inch'Allah. Nous espérons avec vous, Inch'Allah, pour venir ensemble procéder à l'inauguration officielle de ce puits. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ce puits-là dans votre misère Hassanat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, vous et tous les membres de cette association qui vous protègent dans cette vie et dans l'au-delà. Nous disons barakallah fikum wa jazakumullah khairan wa alaikum wa rahmatullah.